Ibrahima Kaba ñu ngi lay nuyu maa ngi lay sa xam-xam màcc na ci wàllum koom nekk nga itam planificateur acteur politique nga Ibrahima ba gis nañu itam gouvernement bi nga xam ne tey moo fi nekk président de la république actuelle Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre bii di Ousmane Sonko ay institutions budgétivores ñoom nag mosuñu see d'accord ba tax na nee nañ bu ñëwee ci nguur gi itam daanu supprimer yenn ci ay institutions li ñu mel itam mel ni ku koy njëkkee ci commission nationale du dialogue des terroirs bi nga xam ni itam daal nañ koy tas di fàttali ni Benoît Sambou moo ko daal di jiite woon euh, li ni mel itam tas nañ ko est-ce que euh, ñoom la ñu la waxoon est-ce que nekkul ci lool la ñu nekk daal di tas li nga xam ni moo di ay institution budgétivore waaw xam nga xam nga merci beaucoup Mbemba bëri nañu boo boo bu boo gëstoo dégg nekk boo xamante ne ñoom boo xoolee eh, jox na suñu bénédiction boobu mu ngi dox maintenant bu fekkente ne ci la boobu lañ nekk nañ ci fumer toutes les institutions du Djibouti rek maintenant comme supprimé nañ dialogue des territoires bu bu Benoît jiite xamul lan moo ko lan moo ko motivé eh, man li ma gëm mooy eh, nañ fexe quand même bañ a bañ a bañ a dugg ci ay ay pièges yoo xamante ne du Sénégal benn njëriñ. maintenant bu fekkee ne ñu dañ jàpp ne ko kii nañ nañ nañ nañ nañ tas as nañ tas ACCT nañ nañ nañ nañ nañ tas conséquence sociale nañ ko tas aussi l'autre là dialogue de territoire aussi donc comme ça ñu logique si seen seen démarche mais peut-être pas que ñu naan seulement tas benn baa ñu nañu fu mu nekk nii boo seetloo conseil commercial mu ngi dox amul ba mu benn problème donc ACCT ACCT aussi mu ngi dox amul benn problème donc pourquoi commencer par le dialogue alors bàyyi beneen bi boo xamante ne jàpp naa ne moo gën a am importance ñu bàyyi ko muy euh, voilà. accord euh, Ibrahima Kaba est ce que jub jubal jubbanti bi moom la ñu nekk di doxal itam. man li ma gëm mooy nañ dem ci acte yi nañ jëf jëf moo gën wax mun nga mun nga mun nga ne wax damay jub jubal jubbantil te booy boo booy jëf doo jëf loolu amul njëriñ donc man ñu li ñuy xam nga xam nga Euh, sénégalais dañu wóolu à cinquante pour cent loolu lu rëy la donc bu ngeen wóolu ñu loolu noonu wala ñëwee jëf leen ngeen bàyyi wax ji nañ jëf bàyyi wax ji donc je pense moo moo ëpp solo bu ñu jëfee bàyyi wax ji bu ñu bu ñu jëfee rek bàyyi wax ji rek sénégalais dinañ gën a wóolu mais fu mu nekk nii pour dire vrai Sénégal yi Sénégal yi rassuré wu ñu de ils sont mm, euh, assemblée nationale dañ koy tas wala duñ ko tas euh, ñu ngi koy agité coow li euh, ñu ci bari ñu ngi ci àddu acteurs politiques yi li ni déjà ban njeexintal la war a mën a am ci budget bi nga xam ne daanaka ñu ngi koy waajal bu fekkee ni itam confirmé nañ ko di jàppali président de la république. ay prérogative la yi nga xam ne am na ko ngir mën a tas euh, assemblée nationale lan ngeen ci mën a wax. oui xam nga nit mën nga sañ mën nga sañ mën nga sañ mais nga nga nga taaxintu lu xaw ma nga bañ ko def instant bii nii instant bii nii c'est une erreur c'est assemblée parce que moment bu ñu tollee c'est moment c'est euh, dans dans l'élaboration et le vote du budget deux mille boo xamante ne dire que ça veut que lu ñu war a dépensé déwén moment bii lañ koy lañ koy lañ koy dañ koy dañ koy séddale moment bii lañ koy validé moment bii lañ koy voté ji assemblée nationale donc loolu instant bi nii nii boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko tasee que euh, amaana budget bu daaw bi am na ay yenn imperfection amaana gars yi war nañ mën a bëggoon nañ ci yokk leneen pour mën a atteindre yeneen yeneen objectif en deux vingt cinq mais boo ko tasee heure bi nii budget bu bu bu deux moom rek ngay ngay reconduire ah. et puis en ah bon euh, président oui oui moom nga reconduire en deux mille dina am ay conséquences yu bari. non dina am ay conséquences yu bari parce que aujourd'hui li nga bëggoon def xëy na li nga bëggoon def déwén euh, en en augmentant le budget ngay am contrainte sept mille milliards ngay yem alors que boo bëtee ren. mu mën a nga dem ci à sept mille cinq milliards mu nga dem à huit mille milliards nga am beneen marge de manœuvre pour mën a def donc loolu noonu erreur la pour man tey li ñu war a mën def mooy lu tax assemblée nañ xaar ba deux mille vingt cinq mu nar a def comme ça yenn réforme yi ñu mën a ko régler ñu mën a régler la question. mais Ibrahima Kaba pourquoi deux mille vingt cinq. deux mille vingt cinq xam nga tey dafa moom la ko expliqué da nga war a voté ay budget da nga war a dugal ay yeneen réforme yi mais tey tey boo tasee assemblée bi doo voté budget deux mille vingt am na yeneen affaire yoo xamante ne tey bu ngeen ko def deux mille vingt cinq doo am contrainte sept mille milliards yi ngeen yor en deux mille vingt quatre bi moom ngeen reconduire waat alors que bu ñu dem ba mu jeex bu ñu voté budget amaana dinañ dem ba am un budget de yoo xamante ne am a réaliser yeneen affaire en deux mille en deux mais instant bi ne technique dafay dafay nekk des dépenses yoo xamante président mooy mooy mooy def ay ordonnance mooy ordonnancé pour nit ñi mën a di di di doxal di doxal réew mi loolu c'est pas c'est pas bien c'est pas bien pour lan parce qu'on n'a pas la majorité à l'Assemblée parce que le premier ministre n'est pas allé faire sa dépêche ça n'a pas de sens yëpp caaxaan la man dama gëm ne nañu génn ci lu ñu nekk euh, waxtaan ak nit le régime en place doit discuter avec les gens doit discuter faut pas dire que euh, man le projet ñi ñu ko gëm ñi gëmuñu ko donc bokkuñ ci non aujourd'hui ils ils ils sont à tête de tout un pays toute une nation ñëpp la war a boole képp koo xamante ne war nañ mën a euh, participer euh, pour pour la marche la bonne marche pays ñu bokk ci parce que da ngay gis seen wax yi da ngay dégg seen wax yi ku bokk ci ku ko gëmuloon projet bi doo ci nekk ainsi ainsi ainsi loolu baaxul loolu baaxul te képp kuy def politique képp ku am vision euh, politique xam na ne loolu du jëmul kër maal wax fi tey di nga toog di nga dégg na ay coalition yoo xamante ne dina am ils sont obligés s'ils veulent avoir la majorité à l'Assemblée gis nga tey man gëw te s'ils vont aujourd'hui aujourd'hui à l'élection duñu am duñu am majorité et le jour où ils vont perdre la majorité à l'Assemblée nationale en faisant ce font là aujourd'hui ils vont li ma la bëgg a laaj mooy est-ce que tey ñu ngi ruumandaat tas ko boo ko tasee élection la ñuy dem mais est-ce que am nañ xaalis bi tax ñu a mën a dem organise élection yi. xam nga déjà déjà déjà xaalis bi c'est pas prévu bi fii ba deux mille fii ba fii ba fii ba décembre deux mille quatre lépp lañu lépp lañu préparé woon lépp lañu lépp lañu comment on appelle ça encore euh, on avait tout tout planifié. mm en tout cas ci budget bi il n'était pas prévu à part l'élection présidentielle il n'était pas prévu une autre élection normalement il devrait avoir une loi de finances rectificative mu fekkente ne élection day am ñu defoon ko ci fu mu nekk nii on n'a pas une loi de finances rectificative budget bu ñu def élection xamoo fan lañ ko jël tax man man la hmm. c'est c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup de problèmes yoo xamante a ñu ngi ci biir te man xaw ma comment ils vont ils vont s'arranger pour qu'on aille. En tout cas, ce serait, ce dem élection aussi ce serait vraiment des fonctions qui vont faire par-ci par-là pour mën a am benn fond boo xamante par aux élections et ça qu'est-ce que ça veut dire vous euh, yu bëri pour aller pour aller aux élections c'est tout quelqu'un c'est comme Covid bi mu amoon à l'époque rek bu mën a continuer jom qu'est-ce les gens ont fait ils des fonctions partout. pour créer benn fond mu peut-être ce du ko jaar. accord du ko jaar du ko léegi euh, député yi ñoom décidé nañ itam maanaam arrondir les angles indi ay correction ci règlement intérieur bu assemblée nationale li ni mel day tax ni premier ministre mun a ñëw assemblée national ngir mun a def déclaration de politique générale bi nga xam ne ñu bari ñu ngi koy xaar euh, déjà ñu ne assemblée national et en action lu am solo la quand Mhm. non lu am solo parce que euh, je pense que dëkk def na li def c'est vrai que au début na bras de fer mais ils ont compris que c'est pays qui est qui est en jeu le le le kii euh, le règlement permettra au premier de venir maintenant la question est-ce que le premier dina ñëw loolu mooy question bi. yow loo jàpp dina ñëw wala du ñëw. Euh, en tout cas mu ngi ma wax mais xam li ma xam ma xam mooy gëw ma il est prêt à venir à l'Assemblée gëwuma parce que maa ngi gis yenn yenn yenn baron de la du régime bi wax ne moom du ñëw ci assemblée bii nii te loolu c'est erreur c'est erreur sur le plan politique je pense que bu ñëwoon assemblée ci gagné plus que ñeneen parce que day ñëw wax li mu li mu li mu def euh, pour ce pays daal même bu ñuy defee motion de censure mais bi nga xam ne amul amul ma ah euh, comment on appelle encore une raison valable pour nationale mais pour le moment il n'y a une raison valable pour assemblée mais maintenant beneen affaire mooy est-ce que le projet il doit être transformé en politique nationale de développement pare na changement le le le le document il est en construction paregul de te gëwuma dina pare avant fin d'année te su pare sax au plus tard fin d'année lay doon te xam naa ci na xam naa ci lu bëri donc je pense que euh, gëwuma ne pare na maintenant moom parewul mais hier yi rek maa hier yi sax des fois ils ont mis en place nañ ne wax wax sénégalais yi fan lañ bëgg sénégalais yi mais mënoo toog. depuis depuis avril ba léegi kenn xamul fan ngeen bëgg jëm le seul mot qu'on retient jub jubal jubanti oui c'est bien mais fan ngeen bëgg jëm fan ngeen uti xaalis ban xaalis ngeen di jëlee pour teem foofu noonu les Sénégalais sont perdus pour le moment. d'accord je pense qu'il doit laaj bu mujj bi bokk na euh, ci ci wàllum koom ngay yëngu ñun bëggoon nañ xam euh, sa gis-gis ci koomu réew mi tey nun koy doxalee euh, ndax ñu ngi ci yoon bu baax beem. oui xam nga xam nga koom bi pour moi Sénégal mu ngi ci yoon mu ngi ci yoon même si am na ay correction yoo xam ni war nañ ko mën a def. mais ce qui li ñu war a xam mooy gis nga le ministre des finances aujourd'hui bi fi nekk. moom moo yoroon ce qu'on appelle la direction de la de de de, la programmation budgétaire. cest budget bu daaw budget bu ñu doxal nii moom moom moo nekkoon à la tête de la conception du budget. donc kooku noonu xam na xam na lépp li xew ci bi ci bi ministère bi donc fu nekk nii comme bi pour man euh, bu bu bi nekkoon ci ruine comme ni ñu ko daan waxee. kenn du fay salaire kenn du fay eh, le li nga gis ne du nga fay kenn du kenn du def affectation kenn def lu nekk mais le pays aujourd'hui n'est pas en ruine ruine c'est trop dire a des choses à aujourd'hui tey war nañ mën a fexe pour que ndaw yi gën a am am liggéey war nañ mën a fexe tey ñu am ay industrie parce que am nañ moyens yi am nañ compétence am nañ lu nekk war nañ fexe tey euh, euh, ñu produire hein, euh, au niveau local, ils consomment au niveau local, ils exportent pour, pour, pour, euh, en valeur ajoutée. Mm-hmm. Mais tant que l'homme n'est pas la faiblesse de, de, de l'ancien régime, comme le a souvent, la transformation de l'économie. Mmh. Donc, amener une croissance bu baax croissance bi secteur bi ko porté secteur baaxul donc tey croissance war nañ ko mën a fexe ba secteur buy créé plus d'emploi mu porté rek mm-hmm. gars yi dañ ci gis seen bopp. d'accord mais tant que le secteur tertiaire continue continuera de porter notre croissance tout ce sera des frustrations et de gëm naa ne aujourd'hui loolu mooy nekk di défi de ce rentrée de ce régime là. dañu fexe ba ñu mën a produire mbay maa ngi fi sàmm jaa ngi fi ñu fexe am am am di produire. Euh, di transformé maintenant ci ay industrie au niveau secondaire et puis di di di di exporter comme ñu naan ñëpp mais mënuñu continuer même des pétrole tey on pour pour di ko transformer. d'accord on mhm. ah, am na solo Ibrahima kabaa ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ni nga nangoo tontu suñuy laaj. merci beaucoup Mbemba maa ngi lay ziar bu baax kontaan bu baax di di également di seen seen rajo bi. Hmm. Euh, merci beaucoup en tout cas pour pour pour laaj bi jërëjëf euh, di fàttali ni yow économiste nga itam nekk planificateur nekk itam acteur politique kon ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi. merci beaucoup Mbemba